recevoir ne leen. mënuma ci dara. yéen wax dëgg yàlla déglu naa leen ba pare tontu leen ci saa si de. après deux jours mu def communiqué ne leen. vraiment déglu naa leen. mais yàlla dogal na ni conseil constitutionnel bu jëlee décision ba pare. mënatuma man président man ak yéen ak ñun ñëpp. ñoo ci bokk décision la boo xamante ni amul fu ñu ko mën a dabe. donc dañu day ñëw dal suñu kaw te dañ koy doxee. président wax loolu. donc mettons les cas des les cas des recalés. Uh-huh. président moom balee na ko moom. te le nee na moom yooyu mënu si dara. te le léegi ba su lu tax le président veut être compétent pour gérer la candidature de Karim Wade ba pare nee na fee ne nu mu tudd rële. xam nga du xam ñooñu kenn du leen faale. nañ ñëw ci dunque dunque bi mooy italien mooy wax dunkee quoi excusez <laughs> mooy nañ ñëw ci xaw ma naka la olof. essentiel ñan ñëw dunque essentiel dunque dunque italien mooy wax dunque quoi. Mm. bu ñu ba ñu wax ci li nga xamante ni. ali kalaj ali kalaj quoi comprendre nga. le problème mooy gis nga président c'est sûr et certain bu ko leeroon ni candidat am day gagné présidentielle yi du ko mës nu mu koy mën a leeree. non xaaral ak président ak mën a sondage. <laughs> <laughs> Serigne président dara rëcc ko ci dëkk bi. Mm-hmm. alors yaa ñuy wax fi ay problème de sécurité ak. insécurité insécurité ak renseignement généraux kër kër. te Aliou Ndiaye non Aliou Ndiaye mi travaille il de de il de jouer sur nos peurs. est que yaa ngi dégg waa ji mm-hmm. mais grave léegi c'est li ma ci metti mooy que ni président dafa bëgg jël peuram boobu ba ko contaminer Sénégal yëpp moom moo am lu muy tiit. est-ce que comprendre mais ñun Sénégal fi ñëpp ñu. mais bu amee lu tiit ñu war nañu am lu ñuy tiit de. non non non xaaral rek ma ñëw parce que fii. ay force kii ay région bi ñu nekk ay ceinture bi ñu ceinture ceinture de feu beeg yooyu yëpp depuis deux mille onze ba léegi président mi ngi ñu ci tiital. comprends nga jël char de yi teg ko ci mbedd bi traumatiser ñu terroriser ñu. moom président c'est lui qui incarne sécurité di Sénégal. est que yaa ngi dégg ba pare mu def loo xamante ne benn président musul oser def ko. mais mu def ko ci façon boo xamante ni c'est audacieux le jour de le jour vingt quatre heures avant ou dix heures de temps avant l'élection campagne électorale mm-hmm. nga am audace changer date bi à cause de quoi Karim Wade Karim Wade nga xamante ni moom par jour la def ci wàllu nationalité am de un de deux mu am audace accuser pas Amadou Ba Karim Wade accusé wul Amadou Ba de. Karim Wade sax accusé wul kenn. non non ñoom waa PDS non. <laughs> waa PDS ñoo ne. Euh, dañu ger juge deux juges deux juges te Amadou Ba moo leen ger loolu ngeen wax ñoom loolu la ñu wax Amadou Ba moo leen ger hmm? accusé wu ñu Amadou Ba xam nga ku ñu accusé le premier ministre du Sénégal xam nga dafa am yenn veste yoo xamante ni non c'est le premier ministre du Sénégal c'est la primature est-ce que yaa ngi dégg wax ji ah <laughs> tu vois ba pare le président premier institution nga xamante ni confiance totale la war a war a am primature mu walbatiku ba euh, euh, euh, mm, mu protéger premier ministre am mais mu bàyyi mu mu mu ne mu mu arrêté suñuy élection à cause de quoi à cause de Karim Wade bi nga xamante ni non simplement que condition yi mu jógee Sénégal kenn xamu ko def par parjure ñu waroon ko tëj ci kaso bi ba pare mu wëlbati ko accuser infraction yu yu PDS def dañu bari parjure ñaari yoon en 2019 te ko defaatoon dafa newoon ne est-ce que yaa ngi dégg wax sénégalais de nationalité exclusive euh, infraction yooyu yëpp violation de loi yooyu yëpp mu dajale ko ba pare wëlbatiku dafa yaa ngi dégg wax ji président osé ñooñu di di di défendre ñooñu ñooñu seen droit euh, violer le droit du peuple mais c'est extraordinaire Cheikh léegi lan nga jàpp ne mun na nekk solution fi ñu toll nii est-ce que conseil constitutionnel la ñëpp war a xaar wala on doit prendre peut-être des précautions euh, am loo xam ne dinañ ko teg aussi bien du côté du peuple wala la société civile et les ñoom déjà def nañu seen front fippu ñoo ngi ciy wax sànq est-ce que dina am benn poids buy tax mu nekk pression ci chef d'État on sait pas encore ñu ngi waaj a seen ay agenda mais lan nga jàpp ne moo war a nekk taxawaay fi ñu parce que mun nañu dem ba 2 juin comme ni nga ko waxee ñu génneewaan leneen ndax ku jël carême jël daaka jël ramadan mun nga jël leneen. comme jël nawet jël nawet. <laughs> ñu ngi excusé wul déjà biram ku jëloo dafa am yeneen engagement yoo xam ne. Mm. waxtu bi jot na. Mm. donc ñun ñoo yéex a tàmbali tuuti. Euh, voilà ndax yoon bu xat beeg yooyu donc euh, biram ku jë jéggalu na. Euh, le temps que sëñ bi Guèye di ñu rejoindre Cheikh. voilà Fatou xam nga rek les prétextes moom du manqué. et on a vu même ñoom ils se xam nga sànq wax nañu fi affaire ne euh, weeru koor mais xam nga déjà euh, man maa ngi fa ma fàttalikoo ne même euh, le carême chrétien dafa commencé woon depuis février déjà mm-hmm. donc ñu gis ne ni donc dina doon li nga xamante ni bu doon quand même c'était un argument solide voilà argument boobu mënul tenir léegi nag Fatou moi li ma xalaat mooy le président Macky Sall moom du jàpp dat avant le 2 avril saa ça je pense qu'il faut juste que les Euh, puisse comprendre que président Macky Sall def loolu on peut pas attendre ça de lui et waxu ko te doxewu ko jëfewu ko mhm. li mu wax leer na période bi mu bëgg wax na ko léegi est-ce que dina ko bu ko jébbalee conseil constitutionnel moom moo ñu si mën a génnee moom kese moo mën a ne président donc yow nee nga mënoo org doo organiser élection avant le de sa date bi d'accord ma si peut-être ñu fixer beneen date mais dans tous les cas moom on a un problème majeur te suñu invité na sànq nee na euh, euh, date bi c'est pas le plus important mais je pense que aujourd'hui Sénégal date moo ñu téye date moo ñu teree xam kan mooy sunu ness ce pas kan mooy doon sunu njiitu réew ginnaaw Macky Sall. Mm-hmm. donc je pense que quand même c'est un rendez-vous bi nga xamante ni c'est un rendez-vous très important. Mm-hmm. opposition nag li mu mën mooy fii nii vraiment amul lu bëri en tout cas sur le plan euh, euh administratif judiciaire amul trop euh, ay solution yu bëri. Mm-hmm. li mën mooy bind na conseil constitutionnel ne ko président bi nga newoon na organiser élection yi ba léegi te na ko organiser bool maanaam dangay dem kalaame wax ko les conséquences dina statuer par rapport ak loolu président dina fa dugal date conséquence moo mën a wax léegi nag peut-être il faut maintenir la pression parce que am na lu président Macky Sall quand loo xamante ne ni ça porte ses fruits ça porte ses fruits président Macky Sall opinion internationale ni mu koy xoolee ñu ngi koy euh, joxoñee baaraamu tuuma hmm. quand gis nañ ne def na impact ci moom naqari na ko parce que toog na def entretien def interview ak ay euh, journaliste ne ñu ngi dox di yàq deru Sénégal man ma rectifié ko ma ne ko non président kenn yàqul deru Sénégal sa der moo yàqu benn wala deru Sénégal bu yàqoo yow yaa yàq deru Sénégal parce que yaa def li nga xamante ni kenn mësu ko def yaa def li nga xamante ni loi daf ko tënk ba mu leer ne balaa ngay dem organiser élection nga toog arrêter le processus nga ne da ngay dialoguer après normalement bu ñu sukkandikoo ci protocole additionnel bu CEDEAO dafa ne avant ngay laal dara ci processus électoral bi six mois avant élection lala may nga def ko loolu su weesoo sauf consensus avec les acteurs mm -hmm. président nee na euh, Mamadou Badio Camara la nee na président conseil économique social et environnemental la ñoo ñëpp fi ñu toog ak président de l'assemblée fi ñu toog coobarewu président moo tax ñu toog fa gis nañu Mimi Touré ba mu bëggee toog te assemblée présidente ko ne bi doo fi toog mm-hmm. xam ne ni ñooñu ay <laughs> monsieur Guèye muy ree mais mais loolu mooy dëgg Mimi gis nañ ne ni yàlla def ba ba mbir mi metti ko metti boo xamante ni ba dafa mujj génn salle bi dem yoonam mm-hmm. donc gis nañ ne président ñooñu mu woo mm-hmm. ay ñooñam lañu képp ki si ñoom ku fa toog signature président am na fa mu jaar ak ba tax nga toog foofu noonu donc tey protocole additionnel bu CEDEAO li mu wax waxtaan ak les acteurs ce ne sont pas les vrais acteurs donc mën nañ sax comprendre su woowoon su woowoon les vrais acteurs avant de prendre la décision et ñu déggoo ci consensus bu ñëwee ne man de waxtaan naa ak les dix neuf candidats validés et finalement on est d'accord on est dans l'impossibilité d'organiser une élection présidentielle ci anam yi dañ koy pousse wala dañu ki au moins laytaay gi dina xaw a dëgër mhm. mais laytaay gi dafa oyof ginnaaw bi mu ne moom ay ñooñam la waxtaanal te ñooñu la waxtaan bi mu waxtaanal ñoom la jël décision donc Fatou jusqu'à présent li opposition mën rek par rapport ak euh, situation bi mooy continuer de s'opposer de maintenir la pression mais surtout la pression au niveau international parce que gis nañ ne ça porte ses fruits les États-Unis ont pris une décision que tu as rappelé ici récemment nee na bu ñu officiel ci euh, Sénégal. donc gis nga fi ak 2024 bi di jeex normalement bu amul benn officiel wala fekk élection di am amul benn officiel buy jóge États-Unis n'est-ce pas ñëw si suñu réew. na mm-hmm. mais monsieur pourquoi Cheikh Balma li ñu li ñu constaté jàppee ko entêtement yëpp taxul président dellu ginnaaw la communauté internationale ñëpp wax nañ moom mu jàppee ko benn campagne de dénigrement de moom mais tam wolof nee lu ñëpp wax ay dëgg Euh, bu ñu amul aussi ay sondage yu concret mais gis nañu ne quand même beaucoup de voix se sont élevées ñaawlu dàq bi ba mu dàqee ba pare ñu xam ne euh, euh, bu ndox tuuroo an bàq des ñu ne kon nañu xool nu ñuy tëggee élection yi balay mandaawam di jeex pour que tradition boobu ñu amoon muy passation du pouvoir mu bañ a dakk ndax fi mu ne ñu ngi wax vide du pouvoir ñu ngi wax vacance du pouvoir xamaguñ ci lan la ñu jëm parce que kenn xamagul lan la ñu président di réserver léegi pour dépasser coowu date bi jàll ci leneen parce que y est-ce que jàppu leen ne yéen waa Benno Bokk Yaakaar war ngeen waxtaan ak moom président ne ko ah comme àddina yëpp communauté internationale bi nee nañu lii ñu bëri ci askan wi nee nañu lii candidat yi conseil constitutionnel validé surtout nee nañu lii conseil constitutionnel nee na nañu def avant la fin du mandat du président et le mandat prend fin le avril yaa xayti nañ jàpp dat ñu tëggal leen élection mu jeex gannaaw nee na doyal na sax ku bëgg ko ko wéttali ak ku bëgg fu mu fanaan quand même Fatou naam kon rafetlu ngeen euh, campagne bu les médias occidentaux li ñu def la rafetlu ngeen ko yéen campagne ngeen ko tudd yéen rafetlu ngeen ko si yéen yow mi nga xam ne ni non parce que parce que xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga même ba tey ba tey aujourd'hui euh, maa ngi seetaan euh, France 24 ils ont fait un reportage ci Kër Massar xam ndax gis ngeen ko Kër Masar lañ def reportage lënkale ko ak situation situation électorale bi wane la pauvreté wane jafe-jafe yi wane truc loolu yëpp sa lan lan lan mooy solo bi e man j'ai suivi France 24 période boobu noonu président jëlee décision que day reporter tous les jours tous les jours toujours correspondance yi ñu ngi couvrir ñaxtu opposition bi ak ñaxtu c'est-à-dire que mm-hmm. un journaliste tu rapportes des faits mais man campagne boobu c'est une campagne ah c'est une campagne mm. et je pense que ñu ànd ak président et que ñu bañ a ànd ak président ñun ñi ñëpp di ay citoyen sénégalais suñu xel dafa war a tey ci ni occidentaux yi am na loo xam ne buñ koy def ñun war nañ ci am xel ñaar lan ngeen bañ ko war a fetlu lan ngeen jox ci ndaxte dafa am lu feeñ suñu réew dafa am lu fi feeñ ca li fi feeñ fu mu feeñ fu ne bërëb yi mu feeñ lu ne lu mu fa indi fitna ak coow ak xiiroo ak ŋaayoo à la